غدا كن غدا يوم قصاص يوم يوخذ بالنواسي ساهيا لي في خلاسي من حساب مع سؤال فالمناوي في بليه وسجايا كعلية كله خير البرية مدركا يا خطب الوجود فسيخي يلا كمي مي مام يا يلا كمي xutbul wujjoodi fa sayxi yàlla ko may قطب الوجود فسيخي يلا كمي ما يمامي قطب الوجود فسيخي يلا كمي ما يمامي قطب الوجود فسيخي يلا كمي ما يمامي قطب الوجود منتيجة ما يمي ونجري ويا وسيق أحمد تيجان يا ورنا تريا وسيق أحمد تيجان ما يا ورنا تريا وسيق أحمد تيجان ما يا ورنا تريا وسيق أحمد تيجان ما يا من يلازم قربه وطاف مطلق النوم يا فمن يلازم قربه وطاف مطلق النوم يا لا تدجروا يا أناس جكنا تلن يا سيخ آمد جيدا ما يمي ورنا تريويا من كان يدخل فيها منوج فيها منوت مستقدم يا بساكم جل قدر متخمام كن ميا وسيغ آمد تيجا ضمانة من رسول ما يمغم مدبير ضمانة rasule mayam nga moom mënuñ mbir ya asara wasara gën naa kawe gaa yu baax ya wasay Ahmadu Tijaan mayam ya war na ca Kada alat kada maya jagoor ya laqad alat kada maya jagoor yëg leen ni seex teg nay na ko ca góor yàlla قصوبي إن أردتم جسد برم قبل الدنيا وسيف أحمد ديجان ما يهوى على النبي محمد والقصة المصلية على النبي محمد والقصة المصلية كساك آل وصحب مي ويدي وي الدرويا

ফুলের লোগা

min xuwalihim jàlla mamadu muhammadu nusaari min xuwalihi siqaabumo qadu bi qadri atihi fakantaihi an widiha wa xoyala soo ñor na kayaanu gën fakam siidi منوط بزيد وقصدك في صديقي تلا محمد وبزيد فاروق قصدي من قدي كن كي صلاة وتسليم على قبر أحمد وخبر أبي بكر وخبر أبي قصي جسر سلام salaamu nuyoo la waaye salaamu mbég la salaamu jàmm la salaamu ay way salaamu musalaay ay salaamu salaamu ala nuuri lazi jaa bil hudaa ay way salaamu ala al badril musamma muhammada wala yaxsa min qurbin wa indahu dal madaa xadi saqamat fi andoyi lawatu sada ñëpp def ni ñu màggal ko ñëpp def ni ñu màggal Baay Ismaayil borom alxuraan borom ñaari leer yi Baay Sëriñ Murtada Sëriñ Moodu Siise Baay Ismaayil sa waaja mooy borom alxuraan mooy borom ñaari leer ya faqral asirati ya usmaana si جدتما قطبا وقص مرداتي باسمان إمام ألف جنين جدتما قطبا وقص مرداتي بينتما قطبا يخلي المور من سنة المستوى جزيت خيراتي فقط القرائن من علم وسودة أسلقت bayanta sublal xawaayaati ku ko sopp neel ni ñu màggal ko basmaan busraakumoo usmaana xat wulitumoo min aali murtada siril fuyu daati laasitumoo fii jadaakum antamit taaw basmaan siril waa kar saaw nee na basmaan mooy sayxun mooy taqiyun mooy xaafisul quraan وسوء النسيقة مع الإمام تباعه فراعة القرآن وسنة رسول ذو الإحسان أي باي عثمان سرن سرن جكندوي واي واي سرن باي سار باي بارا جوب sëriñ ba واي باي dugg taal ñëpp def ni ñu màggal Baye Ousmane Baye Ousmane sayxun قابس القران وسنة قديمة الايمان تباع قراءة القران وسنة رسول ذو الاحسان يلا نكو يلا فيض كي بارك يلا نتبي صلى الله عليه وسلم يلا يلا يوكا اي ليرم سيدنا محمد سيزي اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذنوبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مجدد الأعوام عاما بعد عام الحمد لله رب العالمين الذي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وجعل سيدنا محمد خير الخلائق بالإطلاح وجعل أمته خير أمة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر وشفع المشفع في المعصر اللهم صل على سيدنا محمد baat bi rek daa neex muhammad bi ko aadama njëkkee dégg maam aadama dafa nekk àjjana ba mu yàgg fu mu jëm ñu topp ko li gaa yi naan bës aadama am bës biir àjjana mujj bës bi sonal ko mu ne yàlla lu may toppe <laughs> yàlla lu ko aadama gaa yi topp ñu la de intéressé woo leen sax dafa am leer guy daw sa ndigg leer googoo ñor gaay yi mu ne ko gan leer leeru kan la mu ni ko sayyidina muhammad aadama kero la njëkk a dégg baatu muhammad ñaareelu yoon boobu la ko dégg njëkk na ko dégg keroog bi ñu koy may xawa yàlla bind aadama tëral ko sol ko nelaw aadamay nelaw biir ajjana ngelaw li ëpp aadama yàlla xar xol ba ubbi ko dugal ci cofeelu awa bind awa ci faaru càmmoñam awa am 18 ans toll ni mu war a toll mel ni mu war a mel rafet lool jekk lool yàlla jiitu awa ci dëndub aadama xar dëndub aadama def ci mbëggeel def ci cofeel ah maam xawaa toog ci siisu ajjana xeeñ la toloñu ajjana sol yére ajjana taaru lool aadama ni bërët yeewu ñu fëgg aadama mu ne ket yeewu jàkkaarloog awa keroog la aadama njëkk a gis nit ku dul moom moom rek ka fa nekkoon mu ni yàmm si awa mbëggeel ga yëngatu mu ni bërit wuti awa malaaka yi daal koy baare mu ni lim la lan moo tax ngeen may téye wa xadd xalaaha llaahu lii te maa tax yàlla bind ko ñu ne ko jigéen bala ngaa joteeg moom ñu la koy may danga koy jox can jox ko canam aadama ni teg ni luy can man awma lu ma joxe ñu ni ko salli ala muhammad dullil ci muhammad moo tax sama góor ga bàyyi alxaaji taale si yàlla na ko yàlla yërëm nee na bala nga ni naam ne ne fa wérul mënu ko lu wér mu ni yonent bi bam naan naam néewu fa bàyyi taale si sa nee na bala nga ni naam ne fa génneel yonent bi keroog bam naan aadama yaay takk awaa can gi mooy salli ala muhammad aadama ni allahuma salli ala muhammad aadama dagan ko damay wax ne ñun amuñu droit weddi yonent bi suñu canuk maam rasulullahi la aadama julli si moom ni bërit ni yàlla man huwa muhammad kan mooy muhammad xam nga lu ko jazakallah xam nga lu ko yàlla wax irfa rasaka ya adam téenal aadama teen fa raa nuura muhammad fawxa shuraandi al arsh aadama seen benn leer leer gi nekk ci kaw aras di folooti jazakallah yàlla ni maam aadama leer gël la mu ni ko gii leer gan leer la mu ni ko kii mooy leeru muhammad ni ko aadama bu du woon ak moom du ma la bind bu du woon moom du ma la bind jëmm ji rekk ma ñor ku dul moom lijjantiwu ma مرة بايلا تعالى نين كرسي بي نجول نيول ماك جن بي تي بي دوتو ام وا كرسي بي نجول نيول ماك جن بي تي بي دوتو ام بوي واج بول واي ابن مهيب نينا اعد نظرا في الخلق تعلم بانه كاحمد لم ينشا Digging قد اصطفى المصطفى قد اصطفى مصطفى من مصطفى وصفى فالمصطفى وصفى من اجل قربان بعد اصدر قد اصطفى كاملنا كتاب من ايام رسول الله ابن مهيبني وفي الولاده مطهر بوكلك اجل الورى ذاتا wa aslan wa matida boo koy firi da nga naan ajalal wara saatan ajalal wara matidan ajalal wara turbatan ibnu muhayyab nee na ñett yi kenn tolloowul ak yonent bi yàlla yónni sayyidina muhammad si biir waaye mu wa waxta nashaatihi sa suwaay ko teral وانا والليل مسراه يالا كو ترال كروك بيمي غداي مني الله اكرمه في يوم مولده ووقت نشاته والليل مسراه ابن موهي ابن الله بحب رسول الله نرجو جواره انا نصب رسول الله انا ني بغ يونت يالا محمد عدنا صالح نيمت جيم واي كو بغ يونت بي جوغل تاخاو ني جوب رسول الله عليه الصلاه والسلام اعد نظرا في الخلق من نبي اعد نظرا ci mbindéef bi ku la neex di nga xam ni ku mel ni rasulullahi jigéen doodu ko jur jigéen musu ko jur addu sosuwaay moo seetlu fa mu judd moo seetlu fan ko suul Ibnu Muayyab ni maa ngi wax ñaara tax ma wax ñu ne ko lan la mu ni dama sopp Rasulullahi képp nag nee na maa bëgg yonent bi ak cofeel waaye maa bëgg Rasulullahi ngir doy gi ma doy ñun Ibnu Muayyab lan moo tax nga bëgg yonent bi muy dama bëgg ëllëg yowmal qiyaam bu nu dekkee kawsara yonent yàlla muhammad may ma sa kawsara ma naan ahib rasuulallahi nee maa bëgg yonent yàlla muhammad cofeel gi génn képp la rasulullahi rek laa bëgg ku dul moom bëgguma la nee na damay way di joobe rasulullahi di tagg seydina muhammad kenn du ko weddi أنا واكر رسول الله وإن بلغ المطلوب بالمدح متبي نانا بو فكي جول وين جيرم با ام سب ترانغا ñun de am nanu ñun de jot nanu nee na tagg bi ni tagg yonent bi way yi way rasulullahi am nañ ci ay teraanga nee na montagne lu mu rëy rëy bu ko méngale teraanga yi am bi ni way yonent yàlla muhammad loola daf koy ëpp dégguma indil bayti bi ربا وطاف وزاره محفوظ boo koy firi dooni laxadu faasa man la ba wataafa wa zaarahu da nga naan laxadu faasa man la ba laxadu faasa man taafa laxadu faasa man yëpp yal na ngeen dem yal na ngeen ziyaare yonent bi ibnu Maryam nee na laam ga laamu xas mi la xat li taqiix la laam dafay waat xat di dëggal ñu ni ko looy waat di dëggal mu ni faasa texe na kan moo texe man la baa ku laa baykawu dem ni allahuma laa bayk da ngay dem àjjana yal na ngeen dem ni allahuma laa bayk wat wattaafahu ku wër kaaba ga da ngay dem ajjana yàlla na ngeen wër kaaba ga wa zaarahu ku siyaar baayu fatima baayu roqaya maami seexu tijaan yaakaaru jaami mi teewlu jaabati martabati jaami asil asmaa'i ibnu moyib nee na wa man zaarahu fallahu yafiru zanbahu yonent yàlla muhammad ni man zaarani wajabat lahu shafaa yonent bi nee na képp ku ma tiim ziyaar ma fee ma tëdd ëllëg yowmal qiyam maa lay ramm ibnu muhayyab ni laxad faasa texe na kan moo texe man la baa ku laabaw kaw laxad faasa texe na kan moo texe man zaarahoo ku ziyaar yonent bi laxad faasa texe na kan moo texe man taapa ku wër kaaba gi nee na bu la neexee demal nga wër Kaaba ga bu la neexee siyaaral yonent bi bu la neexee sëlmool suuf sa da ngay bu nu dekkee ba ñëpp teew benn ker rek la yàlla samp yowmal xiyam du keru maamu kenn ku dul keru rasulullahi ku mu keralul dinga nga perte amet nee mooy ker gu yaatu ga dëll ga ñun ñëpp si keru rasulullahi bu nu dekkee yaram wa doy ñëpp kawar ga ñuul kukk di daanu si ginnaaw sakkara yàlla kawak su bàyyi Fatima rafet muy daggañ daggañ naan bu leen ci dinaa si bokk waral maqbulu yowma maadihi ila llahi fi ljamii wa yafidu ataarifu zaka nabiyu muhammad xam nga mooy kan xatibun li rusulillahi fi lasiri sayidi xam nga moy kan tatiw bi dunya wa uxra wa barsax amet nee na bu nu dekkee ñun ñëpp كرو يونت يالا محمد نيون نيب سالا نو يونت بي دي كيرلو من الله انه خب الالهي وخله تموي كرغو ياتوغا موم رسول xoolal bës mahbub doo ñaan yonent bi mu delloo la day tàngal di joxe moom yonent bi moo tax yaa xaysa di ko xool doon ñaan mu naan du fooy jëlee teraanga man ko yaa xaysa xanaa xamoo ne kii mooy géeju teraanga boo dul tere mooy yonent bi mu ni fa doon bës mahbub wala baabu murtad bëgg moom yàlla déggoo ko moom mooy jaam bi nga xamante ni boo ko bëggee yàlla bëggee mooy jaam bi nga xamante ni boo déggoowul ak moom yàlla déggoowul ak yow mooy jaam bi nga xamante ni boo ko toppul yàlla dara xul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhbibkumu llah wa yaghfir lakum dhunubakum huwa al-'abdu مولا بك ودم أتى من يولينا كل فمن ساره ومسيح يعفو الله سمى يا الجدر سبكا ولا لكن من من أمغل خلاص ده دموي من يولد لك سيا كتسو فهنا إسلام موت في خال القرب مفكر من يولد لك تكلو بسرعة يرجع نقول السلام عليك يا محمد وكيف عنده خلي الدنيا كده ما تدوم bu ñu bëggee bu yonent bi day yóbbu gars yi dem màkk àjjana ñu ànd ak moom kaan waajal suñu bopp. lii am lii am lii. bis la yàlla yi gaaral jëf yi fay. wala si boppam. société bi. wax dëgg yonent bi yaa ngi yow mi yow mi sopp yonent bi boo dekkee yàgg a demal màkk aj yow mi sopp yonent bi bu la neexee da nga naan ah, laa xam ne faas man na baax waaye mu idd ليوم الغد والوفد حبه لقد طاف تخيل من طاف كور كابر يوم يقول سيكون بنتس نعد ليوم الغد والوفد حبه بكل يوم تبي ولا نخيل لقد فات تحي من زاره كثير يوم تبي بغثيان سياكا بتاس نعد ليوم الغد والوصل حبه كم ينتلي كم باي فاطمة نكاح الإجابة مرتبة الجامعة أسماء وصفاتي الذي يوم الخيام بنتس النوية الذي يوم الخيام ببايد يدعو دوم الذي يوم الخيام بياد يدعو دوم يصبر الذين طلعوا من الذين تبعوا ورعوا عذابا وتحققت بهم الأسباب وصبر رسول الله مو بكي يوم الكفاءة maa ngi fàttali mooy njëkk yi am na yonent yàlla Muhammad léegi nag yow dañ ko teg dañ ko yëngu-yëngu daal di leen def ihsaanuhum maa xub yonent bi xëy na ku naa fu mu ñu fekk mooy waa tax danaa bëgg a wax ni yow mi bëgg yonent bi booy faatu sax dee day neex yow mi bëgg yonent bi booy dugg bàmmeel day yaatu yow mi bëgg yonent bi borom malaaka yi day laaj da ngay tontu yow mi bëgg yonent bi booy dekk da ngay dekk sa jàmm yow mi bëgg yonent bi booy jot sa cere ni nga ngay jot yow mi bëgg yonent bi sa jëf bi baaxee bu yow la xeew yow mi bëgg yonent bi booy jëm ci siraat da ngay jàll yow mi bëgg yonent bi da ngay dem àjjana mu tënkal laa ko ni ko wa man saarahu fallaahu yaxfiru zanbahu fa nahnu islam muuta fi xaali xurbihi nuiddu li yowmi gardi wal wasmi xubuhu wa yudrikuna ixsaanuhu xaysuma kunna ana ku bëgg rasul jaar kii di ko door kenn ku ne aw sa yoon waaye ñu mooy ne yoonu àjjana ñu ñi mu ne ko war waan yoon la moo di julli si yeneen ci wan yoon la wan yeneen ci wan yoon la bu dul rasul خارج أفعل mu juddu tuuti yaayam dee maamam yor ko yàlla rek rakku baayam yàlla rek mu takk Xadija yàlla yàlla rek mu dese benn la dese Ibrahima du góor ci bi loxo mu xam ne du kenn waaye boo seetee Ibrahima xam ne góor jël baay ba sa taal jël baay ba sa rafet doy na ba taal ba ñëpp di ko taw donc mu xam nag ba yeneen ci bi booy bi commencé commencé dox di commencé dox di du kët du kët te bés ki jóg yàlla ni mën a kët booti demal nga rey ko demal nga rey ko ma ne ko continué teg yàlla ni ko may xaar ma ne ko yàlla métti nag maa ngi lay bàyyi maa ngi lay yaay maa ma maa ko rek maa ngi rek bàyyi soxnaam su baax maa ko rey Xadija Abdoulaye doomam maa ko rey Xasib doomam maa ko rey Abdoulaye doom de maa ko rey ay yàlla kii la dese yàlla na ko dama ko rey te boo ko rey bu lay rafet yonent bi jël doom ji sant nañ ko solal ko yéene muy julli ji malakal moo di ñëw boole ñeenti tànk dina duut. صاحب العرض المولود حاجما إبراهيم الدار بوبا تكنا يوجا تسنا دين صاحب العرض المولود يفر دي ديك أكفيت نجي كونتان نانكو أبتان نغا يانا صاحب العرض المولود يوجد وجود في دون ديك إبراهيم صاحب العرض المولود sant yàlla ñaa amal na bi dooy sëriñ bi ma yàlla nee na allah sol moo def rasulullahi yàlla moo la wax ne borom yàlla nee na dooy Mustafa ni dooy Seexuna ni dooy Mahdi yoo ni borom yàlla nee na di kan seeni jëf la doy loo seeni wax la doy loo moo di ko jëf bi borom yàlla nee na may di jàngale ak ngir lan ñi xam-xam Islam dari kota berjalannya Berikan dunia Kajur al Murtada Ne gat rek Dini, dini mbok yi teew di jiital ci nuyoo bi suñu papa jële toog di bàyyi njëkk ñu teg ci loxoom mu nekk kàddu sant rek ak kàddu ngërëm ak kàddu sëriñ Aliou subhanahu السمين الإنسان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم vraiment bëgg nga ñu. sedd naa sunu xol sedd naa. balaa xalaqulaa bi bi bi bi balaa xalaqulaa bi kamaalihi. balaa xalaqulaa bi kalaamihi. kasafat dujaa bi dijaayi. kasafat duja bidiyaihi samiat qusa bijimalihi sallu alaihi wa alihi jazakallahu khairan jazai wax dëgg yàlla sunu xol sedd mandal nga ñu ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam kon yal na yàlla fay leen yu ñu ngi leen di sant bu baax xol yep sedna di a jaajëfal bu baax cant am na tàmbali waaye amul yem kon jullit bi ak moromu jullitam dafa am juróom benni àq yu dox seen diggante kon bi dafa gàtt bokk na ci isa daaka fa ajibu bu la woowe nga wuy ko kon vraiment wuy si bi rafet na lool ديام بكيز من بولا مفتاو كونك خير تراغا مولاك خير تراغا بو خمي أقل دو خمي دفا دوخ كي ديگر تجلل أن بوكام كون تراغا جوجو أن بريزانس بوغ ني نقلدي لتي نك تيو يالا يالا فايلين بو تيالا فوقنا مولاك يو ياتو نالو كونك خمنا لجامنا خمنا yitte yi bari na kenn amul temps kon nit bu lenn ci temps jox la ko loolu tuutiwul tuutiwul kon lépp rek insha allahu ngeen defal ko bàyyi sumaan kon yàlla yàlla fay leen yonent bi nag dafa wax ni man sana ilaykum ma'rufan fa kaafi'uhu fa in lam tajidu ma tukaafi'unahu محمد وبسيد فاروق قصدي من قدي كن كي صلاة وتسليم على قبر أحمد وخبر أبي بكر وخبر أبي قصي جسن سلام سلام يولا واي سلام بكلا سلام جملا salaamu ay way salaamu Mustafa yaay salaamu salaamu ala nuuri lisi jaa abil hudaa ay way salaamu ala al badril musamma muhammada wala yaxsa min qurbin wa in daw dal madaa xadi saqamat bi addoy lawatu sada ñëpp def ni ñu màggal ko ñëpp def ni ñu màggal Baay borom alquran borom ñaari leeri bay Sëriñ mutada Sëriñ Moodu Siise bay Ismaan sawaja moy borom alxuraan mooy borom ñaari leer ya leen ya. fàtte YouTube Shamsu TV jant bi leeral àdduna te activer cloche de notification boobee ci écran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 bégee ba aljana di ko bégee